asalaamaaleykum man maa ngi tudd Abdoul Aziz Seck man maa nekk escadron surveillance routière bu gendarmerie bi nga xamante ne ni ci légion de gendarmerie ouest bu Dakar la bokk. li ñu fi dajale tey mooy atelier bi nga xamante ne ni Partners West Africa moo koy def ci wàllu sécurité li liñ ci jublu rek mooy li nga xamante ne nii insécurité bi nga xamante ne ni moom la ñuy gis ci tali yi ñu wàññi ko te loolu nag li liñ ci gën a jublu mooy li concerné nit ñi parce que gis nañ ci statistiques yi nga xamante ne ni mooy am at yi yëpp accident yi li ci ëpp li ci ëpp ëpp euh, ci nit ñi lay jóge donc c'est normal que ñu wax ak nit ñi gën leen a yee gën leen a conscientiser ci ñu ci ñu gën a euh, di def yi nga xam li nga xamante ne ni mooy tax c'est dem bi ak dikk bi yemb te du am benn accident looloo tax ñuy insister ci li nga phénomène bi nga xamante ne ni mooy di dawal di téléphoner loolu moom day indi ay jafe-jafe ci si wàllu accident donc ñuy ñaax nit ñi ñëpp ku ci am appel boo xamante ne ni dafa urgent nga taxaw nga woote wala nga wuyu ba pare nga doog a continuer sa yoon beneen bi ci des mooy ñi ñi nga xamante ni mooy moto yi ñu koy gën a wax cak-cak pour affaire livraison bi su dee yow sa moto nekk na euh, aux norme yor nga li nga war a yor muy permis euh, am euh, carte grise moto bi mu am plaque ak police d'assurance mun nga dawal sa moto mun nga def livraison mun nga dawal sa moto pour di ci xëy ak di wàcc mais li nga xamante ne ni moom lañ permettre fii dakaar mooy yor moto di ko def taxsi di ci teg mu lay fay loolu moom dafa am arrêté boo xamante ne ni ministériel boo xamante ni moom moo koy tere ci circonscription dakaar te loolu nag temps yi gis nañ ne mu ngi commencé di am mais jot nañ si suñuy kilifa ay ndigal yoo xamante ne ni ndigal yu leer la pour que ñu xeex ko ba xamante ne ni phénomène boobu balaa muy développé muy kii fi parce que peut-être euh, am na ñu bari ñu koy def dañu ñàkk xam mais lii occasion la pour ñu sensibiliser leen pour ñu xam ne loolu dañ ko tere kon képp ku ko ci doon def te xamoo ko ñu ngi lay ñaan nga bàyyi ko nga def li nga xamante ne nii mooy livraison marchandise wala repas loolu terewuñ ko mais yëpp nit ki pour mu fay la nga yóbbu ko comme ni taxi di def loolu moom dañ ko tere fii nii ci ci ci Dakar yi. immatriculation deux roues yi. waaw immatriculation deux yi fan yi rek gis ngeen ne am na benn arrêté bu ministère des transport génne boo xamante ne ni à travers la direction des transports buy may ñi nga xamante ni dañu yor deux roues ñu mën a def formalité de mutation matriculation seen deux yi te ñu baal leen li nga xamante ne ni mooy taxi yi ñu ci waroon fay donc loolu. opportunité la pour deux roues yi parce que gis nañ ne Dakar deux roues yu bari du ñu am plaque du ñu am carte grise c'est l'occasion pour que ñoo ñu dem rapproché wu direction des transport pour que ñu defaral leen immatriculation seen moto yi ñu am plaque bu leer ba nga xamante ne nii lépp lu ñuy dox day am ànd ak sécurité parce que li ko gën a euh, waral mooy phénomène bi ñu gis nga xamante ni léeg-léeg nit ñi dañuy siif alalu jàmbur yi wala ñuy agressé nit ñi yor ay deux ñëpp yemuñu moo tax nag yow soo ci nekkee foofu li nga xamante ne ni mooy sa wareef mooy nga def loo xamante ne leer wut sa plaque wut sa permis wut sa carte grise ak sa assurance nga xamante ni di nga mën a dawal sa moto ci anam bu mucc ay te doo ci am benn jafe-jafe. responsabilité su ñun responsabilité bi ñu ci am rek mooy li nga xamante ne nii mooy suñu mission mooy fexe ba askan bi nekk ci sécurité surtout suñu nekkee ci tali bi loolu moom. suñu commandement yi duñ si tàyyi mukk à chaque fois ñu ñuy jox ay instructions pour que lépp lu ñu gis loo xamante ne ni àndul ak li yoon digle ñu fexe ba dindi ko dindi ko te teg ko ci fi nga xamante ne ni mooy yoon parce que yoon du ñuy wax force de l'ordre mooy nga def li nga xamante ne ni mooy yoon loolu la ñu suñuy kilifa digal te loolu lañ nekk ci kaw tali bi à chaque fois suñu gisee yoo xamante ne ni ay infraction la yoo xamante ni insécurité lay indi suñu devoir la ñu réprimer ko ba nga xamante ne dootul am te ci loolu la ñuy liggéey à chaque fois.